asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokk jullit yi bokk taalib yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare ci bis bu bi ci waxtu tëdd bi di ginnaaw àjjuma di teg nuyoo bi ak siyaar bi ci loxol Serigne Makhtar Diagne mi nga xam ne yàlla def na moo taxawal liggéey bi sàmbu sàmm màgg bi di daare alxuraan ak jàkk ji ba yàlla def tey jii liggéey bi mat ba ak Cheikh Mouhamadou Mountakha yebaloon Serigne Moustapha Mbacké Cheikh Abdoul Khadir ngir mu ñëw ubbi ko jiite mbooloo mi soññ leen kon daanaka kaddu yi fi Serigne Moustapha wax rek samay kaddu tabbiwaale na ci biir ndax moom lépp lu wax rek kaddu yi soññale doon ndax lépp ci njabootu Serigne la ko déggee wala ci mag ñi nga xam ne ñoo kon sëñ Maxtaar ñu ngi sant di la gërëm ci taxawaay bii lii nga xam ne defal nga ko lislaam te dergo gënu ko màggee ci liggéey sëriñ Tuuba ndax sëriñ bi fum mu mas a sanc fu ne la jiitu bala ñoo taxawal kër gi mooy jàkk ji ak daari alxuraan kon nag bu yàlla defee nga ku ñu tudd tudd Cheikh Issa na nga xam ne cër bi amoon ci sëriñ bi ñëpp xam nañ ko bu yàlla defee nga taxawal lu toll nii kon day mel ne def nga li nga war a def te leneen lu ñu def lu dul lii rek poñeetum adduna adduna la kon li am solo nag mooy jëf loo xam ne ba adduna tukki jëf ji du fi du du du dafiy des ndax doomu aadama bu dañuy wax ne man maata inqataa amaluhu illa min thalaasin nit saa su faatoo rek jëfam dog na jëfu ju nag la la la ciy tax a mucc mooy ñetti sallallahu alayhi wa sallam mooy sadaqa jaariya aw amal amalin saalihin yantafiu bihi aw waladin saalihin yad'u lahu mooy jëf joo xam ne da koy jëfam mu lay fekk fa nga te jëf ji bu yàggee day jeex wala loo xam ne sadaqa jaariya la te jàkk ci la bokk wala doom ju baax ju kon jàkka li ci rasulullahi daali ne man bana lillahi masjidan walaw ka mafxasil qasa qata bana llaahu lahu baytan fil aw qasran fil janna bi ibaratin uxra loolu suñ rasulullahi sallallahu wax ne képp ko tabaxal uh, yàlla ab néeg ci kaw suuf doonte dafa mel ne tàggum përëntaan boo liggéey suñu borom lam la cay fayee mooy àjjana pale bu mag ci àjjana kon lii jëf lu ju solo joo xam ne ñi ni nit ñi wuyu see nag sa diggee ñoom rek ko nit ñi moom amul jotug di fay fay bor dañ amuñ leb amul jotug di leble dañuy fay rek kon nag lépp lépp li nga nekkoon ci lu baax ba suñ doon taw feex la ñëpp wuyu see nga loolu kon dañ lay dégg ngeen caa góorgóor góorgóorlu te xam ne yaa ngi ci yoon wa te boo fi salit naa fa si mut naa fa li am solo rek mooy tanaafus moom ci lu baax rek la war a am mooy njëkkante ci lu baax njëkkante ci ragal yàlla njëkkante ci pëseef te loolu xam nañ ko ci yow nit ñëpp la koy seeral foo ne ko mooy njabootu Serigne Touba gépp fonk gi leen fonk ba nanguwoo dégg ci ñoom dara lu lu baax loo xam ci leen di yëkkati yaa ngi sa loolu ci sama làmb waaye cant la goo xam ne ñëpp la ko sant kon ñu ngi la ñaan ci yàlla ci barke Sëriñ Tuubaa yàlla na suñu borom gën laa dimbale kàttanal la ba lii nga tàmbali nga defaat ci yeneen yu bari mu nekk bidaaya boo xam ne nihaaya ba day màgg nekk mu baarakul ibtidaay yi te am mooy moo du intihaay wassalaamu aleykum wa rahmatullahi barakaatu muy tawfeex ju